président Boubacar Camara. Euh, Salam nous ñu ngi leen di nuyu bu baax di Sénégal nous dañ doon xaar président de la République wax ban bus le def élection yi ba nga dinañu koy le 2 avril service waye liñu dégg moy dafa bañ wax bëss bi nga xamné bi bii ci lañu wara def élection non seulement daf ko bañ parce que depuis le 15 lañu ko waxon mu def ko defu ko mais dafa né bala mu ko def il faut mu def dialogue bo xamné conseil constitutionnel sant ko kenn samp ko mu ne il faut mu waxtaan ak ñëpp ñëpp bi mooy ñi ci bokk ak ñi ci bokk parce que li mu concerné candidat yi nga xam conseil concerné valide na leen yemul ci loolu mu ne dinañu waxtaanee ndax dañuy yokk liste bi dañ koy wàññi wala dañ koy reprendre dañuy reprendre élection loolu nag amul leneen luñ koy tuddee lu fasul yéene organiser élection mu jël nag baaraamam teg ko ci ne bu amul ku ko wuutu moom moo fi toog bu fekkee amul ku ko wuutu moom moo fi toog te moom moo war a fixer date bi nga xam ne ci la ñuy tabbee ki ko wuutu moom mooy toog naa ba pare parce que boo tabul ki la wuutu kenn du la wuutu loolu moo dal Sénégal tey ñun ñëpp nag dañu demul ci waxtaan bu ñuy waxtaanee loolu ben waxtaan lañu mëna am moy fixer na date ñu xol date bobu yan incidence la am ci procédure bi ñu waxtaane lolu ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui donc Sénégal tollu na ci gutt ko xamné ne gi ah dafa melni xop bu ngelaw duggal ci gutt ngelaw bobu génnewu wu ci li ko ciy génne nag mooy taxaw taxaway bi war dinañ ko def à la communauté internationale, nous voulons dire que nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et vous ne reconnaissez plus le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est en train, avec le président Macky Sall, de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections, qui était assimilé à une prolongation de mandat. On a demandé au président de fixer la date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais ne sont plus à jour parce que depuis le 15, on ne parle plus de meilleurs délais. On ne parle plus de plus brefs délais. On est dans l'extrême urgence aujourd'hui. Maintenant, le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d'accord et comme les acteurs ne sont pas d'accord, je remets le dossier au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé. Et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Sénégal se trouve. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. Je vous remercie de votre attention.